amin allahuma amin waaw mais yàlla baax na euh, ñu ginnaaw bu ñu santee yàlla dellusiwaat ñu ñaanal sunu mbaay boobu donc ñu ngi ñëw di wax kàddu yi nga xam ne moom lañ ñu jotalaloo pour opinion nationale internationale ñu xam ni mbër dañoo bokk ci askan wi. maa ngi présenté président mobile moo toog nii sama càmmuñ Mathieu Pereira moo bu écrit Balla Gaye moo toog nii sama ndeyjoor bu écrit Waalo Waalo Balla Gaye ku ci xuloog yow tooñ la euh, maa ngi euh, Valdo moo nekk aussi le grand champion bu ginnaaw raay moom it moo ngi nii toog. notre secretaire général ki nga xamante ni mooy Gakou 2 moo ngi nii toog ah Agogo le trésorier de l' association moo ngi nii toog ah, ki nga xam ne mooy le coordonnateur linitiateur le grand Onde le Fou notre grand notre champion mooy ñaan ñu tàcc ko ndax lii lépp su xewee moom moo tax ndax moom moo njëkk am initiative bi kon Onde le Fou ñu ngi lay jaajëfal le grand champion Mamaya champion bu Tëngéej Mamaya bu Tëngéej moom it moo ngi nii toog ak champion yi nga xam ne ñoo ngi toog fii yëpp on ne peut pas ñoom daa bu Texas xam nga Serigne Ndiaye bu ba bu écurie Balla Gaye je ne wala bu Waalo xam nga Mbaye ma Ndiaye ñoom caat caat bu Waalo xam nga champion yi fu toog yëpp ñoom Boy Jolof xam nga pour ne pas ah ñoom caatu xaar yàlla bari daal jóge nañ fu nekk. waaw maanaam daanu dajul suuf ñoom daa bu Texas ñëpp ñëw nañ gaa yëpp eh, Elton bu bu Géejawaay gaa yi juge nañ fu ne rek. Orca Orca koo lim doo matal ku fàtte nag ma baal. mais sama xel bëgg na lim champion yi nga xam ne tey ñoo toog fii yëpp di xeex nooteel parce que tey ñun débat bi boo ko gisee ak lii lépp rek mooy dañoo bëgg a xeex suñu àq ak suñu yelleef dañoo bëgg a wan askan wi ñun bokk nañ ci société bi dañoo bëgg a wan opinion nationale et internationale que ni mbër am na beneen bët bu ñu ko war a xoolee bu dul di leen jàppee ay dof wala di leen jàppee ay nit yoo xam ne ils sont nuisibles à la société tey taxawaay bii ngeen am wane na ko comme nag damay introduire kese dama bëgg dama ne woon naa introduire comme man maay la porte parole présenté bureau bi présenté assistance bi jox président mobile mu mu wax su waxee ba pare après ñun ñu del si daal di yaatal daal di euh, daal di euh, euh, daal di arrondir les angles daal di conclure asalaamualeykum wa rahmatullah kon ñu jox président mobile kàddu waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñi fi teew yëpp ku ci nekk sa tur sa sant ah, di nuyu bureau bi. mais particulièrement di nuyu suñu mbokk journalistes yi nga xamante ne nii teew nañ fi ah, di rafetlu tamit ndaje ndaje bi fi am nii ndax yaa deux ans trois ans ci ginnaaw wala cinq ans ci ginnaaw boo waxoon réew mi ne ndaje bu mel nii mun naa am ay mbër yoo xam ne tolluñ si benn catégorie bi bokkuñu benn ikiri mun a bokk benn jotaay ne dañuy xeexandoo benn bëgg-bëgg dañ leex amul boo waxee nit ñi fan ngeen ne amul ñu ne ay dof lañ mais tey ñi sant yàlla xëy na esprit ñi ngi avancé ah avant dara di xew tamit ñu koy xamal suñu bopp di ko xamal suñuy mbokku mbër ak suñuy rakk yi nga xamante ne dañoo toog ci ginnaaw doy looñu yaakaar suñu xala xalaat ba lu ñu wax ñu ne ñu lu ngeen wax ànd nañ si lu ngeen def ànd nañ si. Ah, léegi li ñuy njëkk leeral ci bopp journaliste yi leeral ko ci bopp Sénégal yëpp mooy woote wuñ fi ndaje pour kalan ak kenn woote wuñ fi ndaje. pour xeex ak kenn wala pour diir kenn ay bët wala laspeer naan ko pour yow la c'est juste dañoo bokk ci làmb nekk ay mbëri ndaw am lu fi nekk jiite ñu ñu koy wax association boo xam ne nee nañ moo tënk lépp luy mbër nekk Sénégal yaakaar naa suñu mag moo ko jiite ñu koy nuyu passage muy Gris Bordeaux benn association boo xam ne mooy association nationale ñu amaat fi leneen lu tudd CNG. làmb ji yaakaar naa bu fekkee 10 000 licenciés la bu ñuy compter VIP yi matuñu 50 VIP def nañ ci làmb 10 ans yoo xamante ne li ñuy bégalee Balla Gaye Eumeu Sène la Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye lii la ñuy bégalee amateur yi du mbër VIP dañoo rafle ay VIP léegi bu làmb tollee foofu kon ñu bëgg a jël licencié ne bu nekkee 9000 licenciés moo ci des lépp mbër yi ndaw la di dund coono yu métti ci làmb àdduna yëpp teg ci bët monde làmb yëpp xam ko mais nag ñu ànd ak ngor mën a muñ toog fi ñu toog parce que dañoo am ay ñoo xam ne dañoo ñëw ngànk làmb ne ñoo ñu jiite ñu am yaakaar ne ñu jaar nañ ñun fi ñu jaar tolloon nañ ñun fi ñu toll kon xam nañ coono gi fi ne xëy na bu ñëwee ba yegg si foofu noonu non ajootul ñun ñuy ubbi suñu làmmiñ lépp lu ñu métti dinañ ñu ko waxal mais ñu gis ne mondu làmb coono yi ci gën a métti mbër mu ndaw a koy dund làmb bokk ci li ñu gën a xeeb ci senegal te ñu baal ma sportu Sénégal bu weesoo football li làmb indil Sénégal ci trophée amul sport bu ko indil il faut ñu arrêté ñu bañ ñu nax équipe national Sénégal mu ngi nii bu doon fubal tey lii du am duñ fi dajaloo xam nañ fan la ñuy yem raté nañ penate yi ngay dégg wala oo kii moo waroon parte rek ñu ñibbi si waat xaar déwén mais équipe nationale bëre bi mosuñu koo yóbbu te gàdduwuñ torofe bi ñëw ñoo koy indi force équipe nationale yëpp yi nekk Sénégal sport yëpp bu ñuy tukki palais lañ leen di joxe drapeau palais président moo la ko jox équipe nationale yëpp du taekwondo du karaté du lu mu mën doon làmb rek moo fi nekk équipe nationale boo xam ne bu ñuy bu ñuy tukki duñ gis président bu ñu ñibbisee boo maris lañ leen di wàccee ku nekk xool foo jëm ñii ñibbi Fatick ñibbi ñii ñibbi feneen ñibbi feneen parce que mbër lañ tegul fenn mais ñun dañ ko nangu woon départ bi imagineel dëkk ci benn gox dëkk ci benn gox yow sa mbokk fu muy jóge ci àdduna teetal ko yomb na da naan wàcceel boo wàccee Pikine laajteel kër ñoom ondu la fuu rek boo wàccee Pikine foo mën a wàcc Pikine ñu ne ñu ne laajteel kër ñoom ondu la fuu mooy teetal bi léegi kooku ngeen bu ko jàppee benn nit koo xam ne tekkiwul dara ci làmb wala benn nit koo xam ne lii ba pare làmb nekk jëlukaay exemple ci état bi état buy jël exemple ci làmb la koy jël mooy sanction bu muy teg danaan naa naa commencé ci mbëri ñoo ëpp doole dañ naan nemm bu ko defee koo jàll ci moom du wax étudiants yi ñu ci mat 80 kilos dañ leen di compter mais boo téye seen bourse une semaine ñu taal bii si ci dëkk bi yëpp làmb 10 000 licenciés nga xëy mu neex la nga ne na ñëpp dem chômage bu kenn liggéey tëj naa ko ñu ne ba kañ nga ne ba jusqu'à nouvel ordre mooy xamaguma na ñëpp dem toog bu kenn liggéey lijjanti wu ma nag fu ngeen di jëlee dépasse wala nu ngeen def ba lekk loolu sama yoon nekk si dem leen toog rek ci làmb rek la am temps bi ngeen toog liggéeyul yëpp ñi leen yilif est ce que xam nañ na ngeen di def ba lekk est que xam nañ nan ngeen def ba naan mais c'est parce que jàpp nañ ne lii ay xar la lu ñu xiif xiif xiif xiif lu ñu mer di poto yeeg lépp boo ubbee yor paanu ripaas dañuy dawaat ñëw la ñu jàppee moo tax nu leen lañ koy tëjee ñun nag nekkuñu fii naan ay làmb waruñu ko tëj wala waruñu ko li làmb war nañu ko tëj ndax ci réew mi la bokk bu amee lu xew ci réew mi loo xamante ne nii ay loraange mu ngi ciy am bu ñu jël ay décision làmb nekk ci réew mi tey dajale d'accord nañ ñu tëj ko mais est-ce que nii ñu tëjee làmb nii lañ ko war a tëjee ci loolu lañ nekk. mais lan moo tax tamit làmb nekk jëlukaay exemple ba lépp lu ñuy def làmb la ñuy njëkk a tëj. te moom kese lañ tëj ñu tëj làmb dimanche lundi coupe de Sénégal ñu koy joué ñu tëj làmb dimanche man dama waroon bëri ci dimanche bi heure bi may takk ngemb la ñu doog a xam ne làmb ju doo am. après garaawul lépp loo defoon sa làmb wala lépp loo ci financé woon wala lépp loo ci kii après amul problème heure bu ñu ko centré tijji dañ koy tijji ne jël leen dadi mbër mu ci nekk dem débrouiller ju noo kiyee noo ko préparé te loolu yëpp tey. maanaam am na ñu ñu gënoon positionné wu pour taxaw am àqal yelleefu mbër mu ndaw mun ñu koo waxal parce que dañoo jaar ci mbër mu ndaw ba tey suñu borom dimbale leen tooguñu fii nag pour ŋàññi leen tooguñu fii pour di leen jaxaseek àdduna parce que ñun dañoo ñaan yàlla mel ne ñoom dañoo ñaan yàlla yegg fi ñu yegg mais ñaan nañ yàlla it bu ñu yeggee fi ñu yegg suñuy rakk yi ñëw di toll si fii ñu taxaw leen ba ñu xam ne ñun jaar nañ ñoom ñu jaar tooguñu fii pour di leen jaxaseek àdduna mais tey bu fekkee dañoo toog réew mi di tàkk ay bakkan di daanu lu ne di xew benn nit toog bureau woote France 24 ne Sénégal amul mars ay mbër ñoo toog gëj a bëre di taal dëkk bi. wax li muy wax France 24 international àdduna bi yëpp di ko seetaan mu ne mbëri ñooy taal Sénégal ok ñu toog di muñ ne am nañ ay njiit dinañ ñu ko waxal njiit yooyu toog ministre bi ne kaa leen sama bureau ñu ne nooy dañ faa demoon ministre bi moo ñu war a baalu kan moo mës a dégg ci àdduna kaay ci àdduna loolu am na saaga la ndey nga war war laa baalu ne la kaay sama kër dama lay baalu te man man bañu ma ko ma wax kaay ma baalu la de mais bu ma ñëwee nga wax ak man man comme maa ñëw ci man comme président association jeune leader ma ñëw nga ne ma non li ma waxoon dama juum ma ne la d'accord naa ci. mais amul problème man woote loowu ma la sax France 24 muy international mais comme ñi nga ko waxaloon ñëpp ñuy ay mbër dañuy seetaan Bantamba du gàttal 2S direct rek ne mbër yi man damaa juumoon nii. mais man du may ñëw sa bureau nga yëkkati li nga may jox jox ma ma génn ci biti naan mbëri na na ñëpp arrêté vidéo yi ñuy def ministre bi daa juumoon et pare benn mbër bu ndaw toog gis injustice ci làmb wax ko ñu ne ko dootoo bëre 2017 ba tey làmb yëpp entraîné ñoo ko kon 2017 la gëj a bëre ndax lan am lu xew ci làmb mu génn wax ko làmb ree ko ne ko doo bëre mais ñun mbëri xam la moo tax ñu wax ku ci nekk da nga naan man équipe bi ma nekk daa am VIP bu fa nekk te sama grand la des fois xam nga mu jox ma ay équipement des fois mu laal ma ay dàll wala lii wala ay laa munoo génn wax. pour pourtant tey association boobu nu ñuy tudd noonu barki démb ki doon def vidéo magam bu mu bokkal ndey ak baay mooy président bi mu taxaw ne la ñoom ñëpp amaluñ làmb njëriñ parce que ku ci nekk sa personnalité personnelle ngay sàmm mais sàmmoo personnalité lem moom Maodo ak Gris Bordeaux ñoo bokkal ndey ak moo ko wax ci làmb teg ci ne leen ñoom ñiy ànd yëpp. teg ci na la ñoom ñi ànd yëpp ci VIP bi kenn gëmu ci sa morom moom mi ko wax ak ki ko jiite ñoo bokk ndey ak baay dañuy déglu tamit suñu mbokk journaliste yi ñu naan est-ce que seen association bi ngeen créé am na njariñ est-ce que ngeen demoon topp seen i mag topp seeni i ginnaaw nekkul woon mooy liy gën a arranger làmb est-ce que loolu nekkul moo gën ci làmb non moo gën ci làmb dëgg la mais est-ce que suñuy mag taxaw nañ tànk yoo xam ne seen i rakk war nañoo mën a ñëw topp leen. man man en personne association jeune leader bu ma gisoon léegi benn mbër bu ndaw génn def sorti naan association jeune leader nii ak nii ak nii nii ak nii te nee nañ mobile président dinaa wut ba am ko ko woo ko waa rakk mu demee nii ba ma toog di gis ngay def nii ak nii xool lan moo la naqari bu fekkee association mën na laa convaincre suñu biir ndax amuñu benn intérêt pour ñuy dépassé wu kii di jaar nii kii di jaar nii mais ñaata at yéen a ngi gis def sorti ñaata at ñu ngi gis Onde le Fou mi ngi def sorti ñaata at ñu ngi gis mobile mi ngi def sorti di kaasal mbëri ndaw xam nga lan lañ si am toog di jot ay menaces ñu ne dinañ ñu tëj président association bee taxaw nee na dina tëj Onde le Fou dina tëj mobile 2 dina tëj Kona mais ragaluñ loolu parce que kaso boobu du wéet man rek ci benn sàmbur mais est-ce ce que loolu mooy est-ce ñoom loolu mooy seen réaction ak seen i mus naa ko wax ma ne fii mbëri mag yi fi nekk yëpp nañu def cinq ans ñu arrière ci ginnaaw xam ne mbër moo bëre ba def leen lu ñu doon. ñoom dañoo war a bëri ci làmb ba def ci nit lu mu doon ñu jaale suñu papa Mbaye Guèye moo bëree ba def Moustapha Guèye li mu doon Moustapha Guèye ba def Gris Bordeaux li mu doon Père Balla moo bëree ba def Balla Gaye 2 li mu doon Lac de Guiers ba def la de Guiers li mu doon il faut ñu bañ a naxante ku ci nekk mbërë bërë ba génnee la mais ñoom kan lañ bërë ba génnee leen te ñoom ñi leen génnee biñ leen génnee fayeekuwuñ li ñuy di fayeeku amuñu kot bi ñuy am demuñu fii ñi ñii di dem tey làmba ngi def lu nekk làmba ngi fekk mobile ci baraag yóbbu ko ci beneen niveau làmba ngi fekk mobile grand di ko yóbbu Amérique ak feneen ak feneen kon génnee mbër tey la gën a war a mën a gën a yomb mais tey la génnee mbër gën a jafe. liñ séq ak mbër mu ndaw mooy aloo foo nekk dañuy dem dîner suba yow it nga am sa benn matadi gu mat sëkk gàddu sa saak xaabar xaabar yi ñëw ñu teg la ci kanam oto bi bu ñu demee dîner nga nekk sa fukaay bi bu ñu yeggee gaal la ñu jox la sa macaroni bi nga ba suur ñu ne la ñuy bil nga dem ñibbi suba da leen di woo 17 heures heure entraînement mu ne damaa am rendez-vous yow it nga noo salaam toog ne grand bi demul tey. moom mooy dem entraînement am moom amul envie dem nga mujj toog des fois sax nga woo ko mu ne waaye ñëwal gaal ñu teg caa tey dama fatigué nga ñëw nga nangu ko ñëw toog yow mbir mu ndaw bi nga nangu ko ñëw toog mais nag yooyu yëpp boo gisee ñu koy wax dañ koy fàttali wante ñun suñu biir ñun ñëpp parce que ay mbëri ndaw lañ en plus nekk ak ay mbëri mag. am fu ñu jaar fu xaw a bëri ci làmb daj ci ay coono tey bu làmb demee ba mbër mu ndaw day jël cinquante mille francs jox ko promoteur pour mu dugal ko ci programme bi dugal ko ci programme am fay mbër mi cent mille francs yëkkati trois bologu bee bi bolog bu nekk deux cent mille jox ko muy six cent mille mbër mi indil ko ko versé ko six cent mille cinquante mille jox ko muy avance am problème te mbër yu mag yi xam ne mbër yu ndaw yi loolu la ñuy daj bëri yu mag yi toog ci làmb xam ne mbër yu ndaw yi noonu la ñuy daj pour bëre mbër bu ndaw mooy jël xaalisam fay ko pour bëre doo toog ba dégg ñu wax ko parce que sa xam la moo indi duñ ko wax man ngaa ñu ma leen de mais damaa jàpp ne ñoom fi ñu toll foofu la ñuy jàmbat xam nga boo tollee ay millions ay millions ngay jàmbat non say morom ñi ngi say rakk ñi ngi ci làmb ji am problème mu 1000 francs bu ñu réeree nga ñëw bu làmb demee ba mbër day dem ci ménager am ne ko grand damaa war a bëre mu ne ko lijjanti 100000 ma boole la ak diw mu tëgg la problème am na bu làmb demee ba mbër yeeg promoteurs yi am problème ménageurs yi bàyyi mbër yi dem topp promoteurs yi problème am na te yow ci xaalisu mbër mi nga mën a lekk mënoo lekk xaalis promoteur bi loo topp topp topp topp promoteur bi bu tëggul sa mbër doo lekk pour cent rek nga mën a lekk ma am problème ak promoteur nga fal ci promoteur bi problème am na. ñun dafa am mbëri ndaw yi bu dul site internet yi du ñu wax émission làmb yu mag yi sax mbëri ndaw yi duñ fa toog parce que jàpp nañ na seen xam-xam yeegu fa. seen xam-xam yeggul ci ñu toog Bantamba war a développé wala ñu toog jongante war a développé jàpp nañ loolu. lan moo tax làmb fi ñuy nasee ka noccee chaque làmb chaque année bu bees règlement bu bees ñëw te fi ñuy nasee ka noccee mbër du fa toog. lan moo tax làmb lu problème bi rëy rëy rëy buñ ne dañuy woo waa làmb ñu gis ñeenti mbër yu mag ñooy dem toog ne dañuy waxal dix mille licenciés léegi nag gars yi dañuy jël affaire bi teg ko ci association bi da ngeen ko taxawal pour critiquer ñi wala léeg lii da ngeen waroon kii réew mi gis nga wute gis-gis moo waral marchandise di teel a jar fii xuloo amu fi jotewuñ ak kenn mais faaw nit ñi xam ne dugg restaurant commande yaasa taxul maafe bon yaasa mooy sa palaa Ousmane Sonko ak Macky Sall loo wax ñu ne réew mi lañ bëgg a defar lu tax ànduñu bokkuñu ay gis-gis ñu ne ñi fi nekk bokkuñu ay gis-gis dañoo am ay principe di gis ay coono yu métti mbër mu ndaw am combat une semaine du ñëw entraînement bu ñëwee écrit ba ñu koy teg ay daan ak ay lii ndeke ay bologu biir la yor di ko jaay moo ko teree ñëw. bëri na si mbëri ndaw yi fii yu fi toog yoo xam ne am na ñoo xam ne seen 50 mille mu ngi ci promoteur yi dañuy toog xaar xaar promoteur bi jékki-jékki ne la sa journée ak diw dina baax naa la dugal ci sama journée bi nga jël sa xaalis di ko jëmbat. te ñun li ñuy wax nii nii nii barke Seydina Mohamed VIP yi ñooñu ko gën a maîtriser. imaginer mbër mu mag ñu fay la cent vingt millions cent trente millions sa écrit yow sël nga bëri ci te mu neex la ne cent vingt millions bu ma neexee ma ne promoteur bi dagg ma cinq millions dugalal ma sama trois boy yuy bëri ay doo ko def léegi yow cent vingt millions yi mun nga cee jël dix millions jënd ci ay bologu bee mais dix yi cinq yi ngay trois boy yi ngay dugal ñoo gën a doon boolo mais da jël cent vingt millions yëpp boole def sa poos ànd ak booy di leen yéegloo ay din ba ñu tooy koo ci gëj a gis ne ko fan yi da nga yambar de foo nekkoon. jeex na ñoom bu ñu ànd ak yow yéeg din ba kii bu ñëwee toog buntu gaale avant gaale génnee bi ndox yi booy naan fëggatu ku nekk jël sa yoonu kër nga dugg lekk lu baax naan say garab yu baax te di nelaw. booy ñëw gàlle ñëw ci meeru meer meer bi yor jaay woo ci tali bi ay meer démb 200 rek laa la ameel waa léegi jox ma 3 mbuus ba suba nii ak nii ko jéem koloo koloo nu ñuy reeree coono yooyu yëpp ñu nekkee ko mbëri ndaw yi ñu ne kenn du ko wax làmbu am ba jour si ñu toog ñu ne annulé nañ ko mujjul fenn ci ay mbër yoo xam ne mën nañ 120 kilos pour ñu taal da ñu taal ndakaaru comme bonjour mais am yar am discipline li ñëpp mën mën nañ ko li étudiants jaay di def mën nañ ko ndax ñoo leen ëpp kàttanu def ko ñoo leen gën a sawar te lii bu arrêté wul ci loolu lañ jëm parce que tamit ñun munoo ñoo teree liggéey nañu réew mi dafa am lu fi nekk feebar buy bañ dajaloo ñu toog liggéeyuñ ngay toog di liggéey di fayeeku di yóbbul sa waa kër ñun amuñu lu ñu yóbbul suñu waa kër te sàcc la ñuy bañ chaque jour soirée yi di fees dell coupe du Sénégal di daw di fees dell léegi dama bëgg xam ba xam corona amateuru làmb la wala lan la bu fekkee corona mooy amateuru làmb ñu wax ñu. Hmm? feebar bi bu dee mbooloo lay bañ Macky Sall heure buy dem palais day jaar Sandaga li nekk Sandaga xaru xajul arène nationale. kon léegi réew mi jeex rond-point Kër Massar gi li fi nekk boo ko dugalee Ibamar mu fees. bul ñëw marché Grand Yoff wala Tilène léegi lan mooy problème bi. ah. Bari tey dafa max. ok kon corona mooy amateuru làmb léegi nag CNG lañ bugg ñëw def ci moom taxaw seetlu. parce que ñun dañ si bokk Sénégal y di dix mille licenciés bu dee mbër yi compétir arène kese lambu Sénégal satisfaire na Sénégal lu nekk kañ lañuy ñuy arrêté toog per diw dafa feebar gaan na ci gars yi jàpp nii ak nii ak nii ak parce que ñun amuñu yaru toog di ŋàññ wala di critiquer wala di def ay li ñun amuñu yar yooyu noonu ndox nag baaxoowul tàng mais taal bañ ko teg moo soppi jikkoom parce que nii ñu ñuy waxee nii ñun Sénégal xamee woon ñu nii ku ñu yàgg dégg ci internet ñuy wax xam ne ñun xamuñu wax muy metti wala wax muy tàng parce que bokkuñu ci kii boobu noonu mais li ñu dal nii ñi ñu ko teg dalu leen ki tere agogo mi liggéey ki tere kona mi liggéey ki leen tere liggéey yéen ñi mi ngi liggéey ñun ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk ñii Grand Yoff lañ dëkk ñii Pikine ku ci nekk xam nga làmb lu mu def sa xam ngeen ci boo yoo xam ne boo leen gisoon un mois da ngeen ko doon féeteew ana mu dem nag kaso rek nga ko doon jàppee ku takkul ngeem bu xam nga ko bàyyi loolu mu doon dund xas na di ànd ak Baye Baye Ma Ndiaye di ànd ak Ma Ndiaye ba ñëpp xam ko ci Baye Ma Ndiaye mu xam ne moom mënatul def lu fës ndax dañ naan booy buy ànd ak kon làmb li muy satisfaire réew mi dafa bari bëri na fi tey ñoo xam ne ñi ngi wax ñu leen di déglu bu dul woon làmb heure bi puus puus la ñu yor di puus jànguñu maak ñoom a yem ñu amuñu dara kàttan rek lañu am yanu la ñuy mën a def dañuy yanu ji ci marché yi la ñuy nekk di yanu war a dara li làmb jëriñ réew mi dafa bari nañ ñu respecté te nag ñëwuñu fii pour wax rek bàyyi mu sedd de dañuy wax pour ñu wutal ñu solution wutaluñ ñu solution nañ wut sécurité bu doy te xam ne ci tali bi lañ jëm si. il faut mu leer nañ ñu wutal solution parce que dañoo yor famille. dañoo yor njaboot di leen dundal te àdduna du neex ba ñu jël suñu doole ji ne dañ koy dundee ci ñaq jàmbur àdduna du neex ba ñu jël suñu doole ne dañuy nangu jëfu jàmbur pour dund léegi nag ñoom li leen di neex mu ngi nii dañuy tëj suñu liggéey di liggéey léegi xam na moo leen neex mobile ñëw toog sa buntu bureau waaye grand bi gaañ tey nii nga laal ko 100000 mu dem def ci rafetaay ma un mois mu jeex mu wut a jàlliwaat beneen bureau bu ñuy xaar ci loolu du gis nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñoom ñëpp ku ci falu fii mbëru làmbu yee la politiciens yi fii ñaari parti yi rek lañu respecté li may wax booy bu buñ ne nii man leen ndawal ñetti ñi ko gën a xam ci àdduna géwél mbëru làmb ak dëmm politiciens yi ñaari pàcc yi rek lañu respecté ci Sénégal kilifa diine yi ak mbërum làmb yi ndax kuy campagne yi géejawaay yomb na dañ naan la fexeel ba convaincre Balla Gaye rek ba mu nangul la ba topp la boo jëmee parcelle ñu sant la ko ci Modou Lo pourtant foofu yëpp am na ay joueurs internationaux yu fay jouer yu wax demal nga fexe ñooñu topp la ñooñu di fubal di fayee ko ay milliards nga soxla Sénégal nga ne ñooñu la kaa jox ki ko mën a jox mooy mbërum làmb ji te làmb ko gën a ñàkk a pour lan ñu war a ne di dund loolu ba kañ. beneen bi ci topp ñu koy wax ñi fi toog yëpp ku ci am pexe ku ci am solution ñu ngi ci ay tànkam sànq ñu ngi ciy waxtaan ak Kona maa ngi ciy waxtaan ak Agogo Bébé Saloum dafa am problème. fekk association bi mayuñu leen jàmm konaa di def fii sorti ond di def fii sorti ond lii mais ñoom période boobu pour ñu tëj suñu gémmiñ faaw ñu def benn geste si cas boobu gars yi nañu amoo leen li ngeen wax bu Bébé Saloum am problème ñoom ñëpp ñu ànd dem taxaw ci tribunal bi ne Bébé Saloum la taxaw nii nii ma ne gars comme ñoom ñi ngi def geste si Bébé Saloum nañ leen bàyyi ñu def geste quoi parce que nit am na noo koy toppee day ñëpp leen distance ba tey dañoo toog seetaan Bébé Saloum dix jours avant tabaski ba tey bébé saalum nekkul ci prison bi mu ngi ci hôpital tëdd dafa feebar gravement dafa sonn ñun nag xaaruñu leen pour ñoom ñu ñëw taxawu ko wala lii dañoo bëgg association jeune leader ñi fi nekk yëpp ku yegg jottali ko sa morom ñu pare pour def ci ay jéego xool luñ si mën ndax suñu mbokk la ci làmb la bokk te borom tur turam rek a koy dimbale bu ñu xoolee ba turam fay si làmb mooy day maxe ci kaso bi. bébé Diène suñu frère la si ñun la bokk nañu xool nu ñu ko taxawoo. ñun loolu xam lan moo ñu taxa a jóg ci làmb mbër mbër mu ndaw jot ak àqam ak yelleefam fa ñuy invité mbër mu mag bi jàpp ne kii am na xam-xam pour toog fii nii wax soxlaam nañ jàpp ne mbëri ndaw yi am nañ ñu am xam-xam plus que kooku ba mun faa wax lu leen dul lu ñooñu waxul. imagine toit tey CNG ñu taxaw ñu xëy ne mbër bu vacciné wul ñëw présenté ne am nga lii doo bëre ok association bu mag nekk fii nii nekk ci làmb ñu ne kenn du ci wax. mais xam nga moo ko indi bukk yi sàngoo deru gaynde lañ parce que ñoom ñëpp ñoo def fii video woote vaccination bi arène nationale kan moo leen fa gis waaw ah, ok moo tax bu CNG ne na ñëpp ñoo vacciné wu wala kenn du bëri ñoom du ñu wax ñoom du ñu wax est-ce que c'est forcé man damaa war a jël licence dagg ko ak sama xaalis ba pare ñu ne ma di nga vacciné wu ci force wala doo dugg ci stade bii nga bëri léegi ku feebarul léegi ku feebarul man mi dëkk Grand Yoff hôpital CTO nekk fa gën a rëy ñëpp dañ maa war a forcer ne arène nationale laa war a vacciné woo médecin bi nekk arène nationale di vacciné nit ñi man dama koo xam dafa maa leer na mag médecin la te ma mën a dem CTO vacciné wu fa mu leer ma naññ mais la moo tax ñu ñëw ba ci làmb def ko par force football nekk Sénégal basket nekk Sénégal karaté nekk Sénégal lépp mais mbëru làmb yi ñoom ñoom lañ jàpp ñoom dañ koy wax sax boo waxee dañ naan xam-xam mbëru làmb moom passé maa la mën maa la ëpp doole bu ma la jàppee dama xam-xamam léegi ñu ñëw ba ci làmb ne fii par force lii mooy am wala lii du am. daaw bi corona ñëwee ñuy tëj làmb lañ njëkk a tëj. ñu toog ba mu nekk ko woykat yi dem wàcc tali bi ñu jox leen 3 milliards ñu xeeb 3 milliards kon ne di mars ñu dool leen 2 muy 5 milliards. ñu ñëw ba ci làmb jox leen ñaata bu ma fàttewul. 10 millions 10 millions. ay promoteurs lañ 10. 10 mbëri mbëri 10 millions. mbëri 10 millions la 8000 ku nekk 375 lay am. ak boole ceeg toog un an compétiro calcule ne leen 10 millions 8000 ku nekk da cee mën a am 50 ku nekk 12500 lay am un an boo liggéeyul maanaam weer bu ne 1000 francs lañ la ci fay. parce que ay mbëru làmb lañ. teg ci nag dañ leen noppiloo ne dañ leen a jox noppi leen looloo ci gën a garaaw bu buñ la ko doon jox ba pare ñoom ñu noppi. mais dañ leen noppiloo ñu ànd fii toog war a dem bureau Matar Ba am lu ñu tënk boobu ci immigration arène nationale bi la xëy na Kona moom bu ñëwee sax damay bàyyi loolu moom mu développé ci mais loolu lañ saraxee Kona te ay mbër yi mag a ko saraxe ñoo ko yóbbu ba ci kilifa gi dóor ko ci kaw kilifa gi roccee ko ba ko ñu ree ñoo ko bëreetul am na tele yoo xam ne duñ ko jël interview te ay kilifa ñooy woote ci kaw ne bu leen introsé diw. mu leer ñu nañ mais ñu tamit ñu pare pour porter combat boobu wan leen ci làmb la nekk li muy wax ñun la koy waxal bis bu jógee di wax loo xam ne pour boppam la ñu pare ci moom xam ne moom boppam lay waxal mais làmb lay xeexal bu ko làmb seetaan ñu ko ciy génnee mu def sept combats six victoire mu def sept combats six victoire ñu ne dañ koy génnee ci làmb benn défaite léegi lan lañ bëgg ku taxaw yor xalam xalamal leen yaay diw làmb sax da nga ko mañ ba boo ñëwee di wax dañ naan Matar Ba mooy ministre lamb ki ko wax nga ne ko foo ko teg mu ne man bi may takk jabar daa bi sama yaay gaañoo ñëw na kii bi may tudd sama daa ñëw ñoom foofu lañ ko teg ministre de ok yow loolu sama xaritoo ak yow la bi may takk jabar da ngaa ñëw man ak yow la concerné mais kañ la làmb toll ci situation ñu sauvé ko. nekkuñu dak Kaolack di bëre di compétir chef de l' état. drapeau chef de l' état xam nga mooy lan drapeau président Macky Sall nekk Kaolack di def tournée munul sax jaar foofu noonu honoré mbër yi nii mu xam ne man mi ngeen di compétir yëg naa leen mu jaar fa bu dee benn 10 minutes mu tourné dem ñibbi dëkk bu mu mënoon doon daf fay dem. gudd ñu ngi jégalu ñëpp mais c'est su ñu xam ne li ñuy wax nii nii nii nii suñuy rakk yu topp suñu ginnaaw moo tax ñu koy wax parce que tamit tey. Euh, maanaam mënuñu def ni VIP di def mais mënoon nañ toog rek jàpp suñu ñàmbur parce que yàlla dimbale nañu ci làmb tollatuñ fu promoteur naan da nga may jox 50 000 ma dugal sama yàlla dimbale nañ tollatuñ fu ñuy joxee ay billets pour mu nekk suñu avance yàlla dimbale nañu tamit fu mbër di dem ci àdduna mun nañ fa dem mais xam nga la moo tax ñu wax dañoo jaar fi booy jaar ba pare rombaguñ foofu noonu parce que ñun ñëpp ñaari defet dañuy dellu si waat fekk si booy làmb di la jafe promoteur yi di la woyee di loo

boole ko booy bu la ci desal 10 bee nga koy woo téléphone naan ko est-ce que xam ne journée bi ma la bëggoon dugal moo gën a baax booy bi di def pexe bu nekk pour indi la njëgu 10 bee yooyu te da ngaa jox ay supporteurs am ñu dugal ko ci stade bi. ñu ngi jéggalu ñëpp interdire bi xaw na gudd mais c'est juste di wax ne li xew ci làmb te nekk injustice moo bari. léegi nag lenn la ñuy demander di jubal direct ci président di ko wax Matar Ba duñ ko jéggi parce que moom mooy ministre des sports te ñun ay sportif lañ. di ko wutal di ko wax tamit ne moom solution la ñu soxla solution bi ñu soxla mooy ay xale yi ndaw ku ci nekk attan 100 kilos ragaloo yàgg a xeex façon xeex bu nekk ñu ne demal toog nga some te yow li nga doon liggéey ci ngay dundal la say waajur man ma yeewu sama yaay tawat ñu jox ko mille 12000 2000 francs nekk sans poche mun naa def loo nit lu nekk te buñ ñu xaar ñu yegg foofu parce que judd nañ ba toll nii ñu toll kenn xamaluñu dara. bala ñuy am lu ñu neex nag ñu weer ñu ñu weer ñu mooy ñu génn dugg ci lu ñu warul dugg après ñu taxaw nag naan waa lii la lii la lii doon li ministre bi doon wax dëgg la mbëri ñoo fi nekkoon di def lii ñoo fi nekkoon di def laa bugg ñoo yegg foofu nañ ñu wutal solution te li ñu waxoon it amuñu luñ si arrière pare nañ pour ñoom lum ñu jaral mu leen jaral pour ñun ñu dem semence rek ñun jaral nañu ko pour ñu dem liggéey loolu moom dellu pare wuñ pour dellu si ginnaaw lum leen jaral pour ñu toog du liggéey nekk semence jaral nañu ko ñun pour ñu dem liggéey parce que tamit ñu toog defuñu dara ni amul njëriñ heure bi bu fekkoon làmb mu ngi am lii mënul ne ku ci amul combat tey yaa ngi ànd ak sa waa écrit ñu am combat ku ci amul combat journée bii daw neex na la da koy seetaan yi li làmb di def ci réew mi dafa bëri na ñu jox cër ñoom état bu ñu bëggee def yenn affaire yi sax làmb ju mag la ñuy tëggalu coow la coow li topp làmb ju nekk ci seen bopp gis nga bi ñu fi nekkee naan corona amul ay Macky dem na tournée ba ñëw ak lii ak lii Gaston Mbengue daa tàllal yu mag yëpp gars yi ne neem kenn tàllatul li Macky Sall daa demoon tournée ak demul mais comme dem nañ ba coow loolu fay na ñu bo ñu bolekee làmb mais dama bugg xam ba xam mbërum làmb yi ñooy chômage yi wala lan la ba làmb war a taxaw lépp kon ne di dox lan moo tax CNG taxaw ne ko vacciné wul doo bari te gisuñu benn VIP bu génn défendre ñu taxaw nag wax ko ba di ci boole suñuy supporters même supporters yi kuy dugg ci stade bi dag ñuy wan carnet bu wane ne vacciné si sinon doo dugg même site internet yi même lii même lii même laa làmb nag dafa bëri ñu mel ne mobile pour mu am solution làmb toog waxtaan rek lay laaj toog waxtaanu làmb nag gis nga day laaj ñi mën di def ñi mënul xamuñu làmb daa bari ñu mën leen mobile mënuñu te dañuy def làmb daa bari ñu mel ne mobile dañoo war a déglu te dañuy wax lii mooy catu làmb mais gis nga bis bu ñu jógee pour toog ba woote ndaje ne dañoo war a toog ñëpp war a toog gis nga bu ñu toogee dinañ fekk mbër mu doon fayeku 100 millions xale bu ndaw wax ñu xeeb ko. bis bu ñu toogee làmb pour waxtaan ñu woote ko jotaay ba mel na mu war mel mbër yi ndaw yi toog nii mbër mu ndaw dina wax ñu xeeb mbër mu mag ma daan génn ci tele yi chaque jour di wax. mais nag li ci kanam rawuli bët lenn rek laay wax nañu yokk gëm-gëm bi ndax ñun ñii ñëpp leer nañ ne ñu fi jógee ku ci nekk mbër mu mag mi nga nekkal dina la woo naan leen yéen lii yéen yéen laa mais ku ci nekk nanga xam ne li ñuy wax ni yow yaa koy dund moom dund ko boo ko xamee noonu rek du métti may jégalu ci kàddu yu guddi xam nga di nuyu champion yi fi toog yëpp di jox tamit suñu porte parole ndax moom it am na feneen ak feneen fu mu war a yóbbu waxtaan wi incha allah ñu bàyyi ko mu développé ci jërë ngeen jëf. maa ngi nuyu waa association des jeunes lutteurs yëpp waa di kontaan ci détermination bi gars yi def nii ñëpp bàyyi seen yitte ñëw yi yombul c'est pas évident parce que boo mësaana wax dañ naan la mbër yu ndaw yi duñu mës a dajaloo duñu booloo maa ngi nuyu association bi ni ci nekk ñëpp ci bureau bi. ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo membre association bi yëpp. waaw juste que ni association bi biñ koy biñ koy kii pour lan la xeexal mbër mu ndaw ñun dañoo nekk ci écurie nekk tête de filu écurie écurie bi ñu nekk heure bu ñu ñëwee entraînement dañ fay fekk ay boy yoo xam ne dañoo am doole mën a bëre. am nañ doole mën nañ bëre ba pare respecté nañ la ba pare di dund ay coono yoo xam ne nii yu metti la te yow mënoo jël seen xaalis def ko li nga mën mooy dénoncer leen. juste que nit moo tax ñuy dénoncer lii ñuy dénoncer nii parce que nit da ngay am fulla quoi ñun bu ñuy xeex benn affaire lii moo ñu ko mën a xeexle mooy tey ñun ñëpp bu ñuy dóor nañ dóorandoo ñëpp cause bi li ko waral bi ci njëkk mooy gis nga ménager yi complice lañ ñoom ak promoteur yi complice lañ ñoom ak CNG yi président yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk président écrit yi ñooñu ay complice lañ ak ñoom ci seen wàllu bopp parce que benn lobby la président écrit yi xam nañ ni booy yi dañ leen di jox ay billets ñu koy jaay te benn président écrit musul génn wax ko tey ménager yi ñooy indi billets yi ba ci kër booy yi am na ñoo xam ne nii seen saak la ñuy boot sax indi ko ci stade bi di ko jox booy yi est-ce que nga waxuñu ko te ménager bi défendre intérêt mbër mi moom moo ko tax a jóg waa CNG ñoom ñoo la gën a xam loolu parce que bañ fi nekkee ba léegi mosuñu ni benn promoteur dañ ko dañ ko sanctionné ci dafa jox mbër diw billet xam nañ loolu bu baax Gris Bordeaux dafa jël suñu vidéo bi nga xam ne ministre de la justice dafa génn ni mbër ñoo doon taal dëkk bi ñu ni ministre bi waxul dëgg mu jël ko yóbbu ko fa sama vidéo vidéo kona ak vidéo mobile nee na dinañu tëj parce que moom loolu la am comme comme argument amul argument mënul wax ak ñun Gris Bordeaux bi ñuy wax ba léegi mu soo ko dégg mu génn ni li booyee di wax du dëgg wala nangam liñ koy laaj moom moo fi taxaw ni Alioune Sarr sàcc la. Mhm. Gris Bordeaux moom moo fi doon wax. Mhm. Alioune Sarr sàcc la injustice la fi nekkee nangam ak nangam ba jëlee fi Alioune Sarr mais Gris Bordeaux xanaa kon moom sàcc la parce que mi ngi ak suñu 10 millions. 10 mhm. millions mbër mu nekk 8000 licenciés 12500 la bu ko séddalee ñun ci suñu waa suñu waa association ak seen kon ñun am nañ fa 5 millions bu fekkee ni yéen da ngeen ko baal man baaluma ko Gris Bordeaux samay 12500 man loolu am naa droit Gris samay 12500 est-ce que nga mais nag dañoo toll ci ni dañoo toll <laughs> président toll ci niveau boo xam ne nii dañoo toll ci niveau boo xam ne nguur gi mosuñoo respecté te duñu respecté ministre Matar Ba defu fi dara Matar Ba da ngeen di raay raayal nii Matar Ba bi mu fi toogee ba léegi defu fi dara. te li ko li ko li ko li gën a yokk loolu ci Sénégal yàgg naa ko wax ci samay kii nee naa leen sëriñ yi nekk ci télé yi di def ay affaire maraboutage ñi nga xam ni ñoom ñooy yor seen YouTube yi ak télé yi ñoom ñooy seen complice. parce que ñoom ñooy fexe ñuy dóor. boobu ba mu koy wax sëriñ boobu rayul jël bi nekk Lamsaar. tey loolu ñëpp moom lañ génn commencé di ko wax ministre yi ci xam ñan ñoo leen di dóoral nit ñi nga xam ni dañoo siiw nit ñi am tur ñoom ñoo leen di dóoral ak télé yi ak nangam fii waroon na fees dell am na télé yu waroon a ñëw mais man gis naa benn koo xam ne dafa nekk di animé télé bi ma ñëwee ci moom li ma njëkk a wax mooy da bari wax da ngay wax léegi rek parce que li ngay wax arrangé wu ko li ngay wax arrangé wu ko yow ngaa bari wax da ngay wax léegi rek fi mu toll nii xam nga lan la ñun ñoo xaaruñu ci ma Samba xaaruñu ci ma Demba suñu prochaine sortie xam nga lan lay nekk génn ci tali bi Mm-hmm. balaa Gris Bordeaux di ñu tëj ñun ñu tëj lu suñu bopp génn ci tali bi xeex ak ñoom pour lim ñuy def ñu teggi ko maa ngi jéggalu nag ci kàddu yi. waaw asalaamaaleykum pour une deuxième fois konaa la euh, porte-parole des jeunes lutteurs donc may rebondir rek euh, fi gars yi fi gars yu daanelee ne leen maa ngi féliciter assistance bi encore une fois di rafetlu kàddu yi fi jib kàddu yëpp kàddu dénonciation la borom gémmiñ guy naaj peut-être du wax jàmm moo tax ñun sax waroon na noo gën a mer nii. waaye xëy na euh, discipline ak yar bi ñu yaree moo tax lu bëri duñ ko man te nag nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu moo tax ñu ne nañ njëkkee waxtaan ndax tey avec la magie de la technologie mën nga toog fii nga wax li ngay wax Macky Sall toog biir palais mu dégg sa jooy kon donc suñu jooy lii ñuy wax dañoo bëgg autorités yi dégg ko jël si ay mesures bala avant qu'il soit trop tard parce que du ay wax kese après dañ poser ay act pour ma wax leen nag euh, ma bëgg a expliquer historique gu ñun suñu taxawaay ñun jékkee-jékki wu rek fetteelu ne dañuy créer association non no no non man mii di wax ak yéen képp ku nekk ci monde làmb xam nga ni Kona il était actif un membre de l' des lutteurs en activité depuis Khadim Gadiaga man ñoo ma fekk sama kër man jël si ma man Kona 2017 bi ma defee sama sortie boobu ma def dal ci kaw gestion bu nébuleuse bi CNG nekkee woon ci ci làmb ji ci la ñu ci la daanaka révolution bi démarré ma ne pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y révolution ma nekk benn jeune lutteur boo xam ne damaa jóge si victoire bu ma neexoon toog ne man sama yoon nekk su comme gars yëpp Gris Bordeaux mii tey su bokkee ci xeex bi tey man maa ko ci goole Agogo mii du ma bàyyi ma fen mobile du ma bàyyi ma fen Gris Bordeaux moo ma ne ci làmmiñam sama nopp mu ne ma konaa sa ITV laa déglu yow ak Lamine bu Lutte TV boobu Lamine sax caméra lay téye Babacar moo doon moo doon questionné man maa taal sama moto dem ba foofu buzz mii tey ne ma Kona est-ce que jàggoo ni li nga wax nii ma dagg si dara ma ne ko boo si daggee dara yàlla buñ xola àjjana sax du ma alaaxira du la ko baal bul dagg dara tegal lépp mu ne damay ragal mu joué si sa carrière parce que li nga wax sax mbëri mag yi ñeme wuñ ko wax te li nga wax lépp dëgg la ma ne ko comme dëgg la rek tegal lu ma ci fekk ma jël bu doon da nga ne ma li ma wax du dëgg bu boobaa nga am loo ci dagg mais comme dëgg la tegal ndax yàlla moo moom dëgg te dëgg moom ak ñëpp te effectivement ni mu ko doon xalaatee noonu la demee bi ITV bi génnee effectivement bi ITV ITV bi génnee dafa def buum Gris Bordeaux moo yëkkati téléphone am woo ma ne ma booy li nga wax nii ñun mbër yu mag yi ñoo ko waroon a wax. billaahi yàlla na ñëpp dugg àjjana ma dugg safara bu dee li may wax du dëgg kii témoin la mu ne lii nii ñun mbër yu mag yi ñoo ko waroon a wax mais yow nga am courage wax ko booy tu as tout di te bis ni ki tey man maa ngi si ak combat bi jour bi ko Tafa Gueye di woo di ko dugal ci panel bi. jour boobu mu ngi mel ni tey ci man ñuy ñu moog Tafa Gueye ñu nekk ci oto père Tafa Gueye mu naan bis ni ki tey maa ngi seen ginnaaw te lu ngeen nekk ma nekk si bi ñu demee arène nationale bi ci kaw étage ba kon ñoom laasana ci théâtre verdure foo de duusi ba fa la Gris Bordeaux waxee woon Alioune Sarr sàcc la foofu la njëkk a réunion suñu première réunion Gris Bordeaux ñëw toog Ama Baldé ñëw toog mbër yëpp ñëw toog kon tey ñun dañoo te man association bi tey dugaluma ci sama bopp dañu maa ñëw fekk jël si ma taf ma si seen wet ma nekk xale bu ndaw nekk ci seen biir mais nag mbir mi du affaire xale moo tax ñun ñii ñëpp ay ndaw lañ mais soxlawuñ magum jëmm magum xel lañ soxla ñun ñii ñëpp nañ use suñu moyen xam ne ay ndaw lañ te réew yi Sénégal ngay am 53 ans ñu naan la xale nga Sénégal da nañu jël ndaw ñi ndaw ñi nañu jël seen responsabilité soo missi Messi benn at la ma magee man te il est milliardaire multimilliardaire ñun dañoo war a gëm ni ay ndaw lañ te avenir boo bàyyee ba nekk ma nga am xaalis donc mais àdduna xaalis bi du neex si yow xale moo war a am xaalis kon xale moo war a gérer xale moo war a gëm boppam kon tey taxawaay bi ñu am ci association des lutteurs en activité bi ñu demee ba gis ni Gris Bordeaux mii fi muy teg tànkam du foofu Khadim Gadiaga moo démissionné dama leen di wax rek pour yéen ñiy questionné ngeen xam ne ñun fétteelu wuñu dañoo toppee waaye ñi ñu topp bañ demee ba gis ni ñoom li ñu tax a jóg ñun taxul leen jóg seen seen intérêt la dañ leen faa bàyyi ne ñukk tey ku jàkkaarloog mataar Ba wax ak moom dëgg man mii mobile junj na ko bi Khadim ga ñëwee démissionné Gris Bordeaux moo ñëw taxaw ñun ñu proposé ko man bokk naa wallahi kii ngi nii bokk naa ci ñu ko doon campagnal pour mu jiite parce que am na sax ñu taxaw ne Kona moo war a nekk président. ku mel ni Pape Sène tey mu ngi États-Unis du ma bàyyi ma fen dugg ne Konami moo war a nekk président man leen man parewu ma sax maanaam bu dee lu gën ci làmb Gris Bordeaux nekk président moo gën ci làmb Agogo ñu ne du ma bàyyi a nekk président bokk naa ko baab ci suuf ne ko bàyyil Gris nekk président billaahi wallaahi tallaahi lan moo ñu amalul njëriñ làmb dox te Gris Bordeaux nekk président moo gënoon am profil bi parce que Khadim Gadiaga dañ ko daan xeeb CNG da nga daan xeeb naan dafa gëj a bëre il est inactif depuis 2012 bëreewul du mbëri politicien la waxuñoo moom. loolu yëpp daf ñu doon porte préjudice te teguñu ko fenn Khadim ah. Gadiaga mbër la te moo jiite mbër yi dañu a wax ak moom mais comme tooñ bi ñu yàggee injustice bi CNG yàgg a def nanguwuñ da wax ak Khadim Gadiaga man nag pour ñu contourner fee boobu nañu jiital Gris Bordeaux il a le beau profil doone ñetti mbër te doo ko tudd kon donc kooku suñu tey association bi dina am bi nga xam ne moom lañ bëggoon mais loolu vision la tey ñun kon duñ ko duñ ko jiital ba pare campagnal ko ba nit ñi jiital ko ñu wëlbati ko di ko xeex amul sens kon dañoo gis ni doxalinam baaxul nu mu ko doxalee du noonu ñu taxaw fustige ko ñu gis ni moom mu ngi dem ci plateau yi di dem ci autorité yi naan président des lutteurs te deful benn acte bu jëmale làmb kanam ñu koy gis ñu koy invité ci tele yi muy privilégié wu ci opportunité ma parce que président des lutteurs du Sénégal kooku du caaxaan président des lutteurs du Sénégal kooku du caaxaan kon ba mu demee di ba mu demee ba ñu jox ko ko kon war na am taxawaay bi ñu demee ba gis ni lu mu dox Maodo mën na ma seede magam rakam man ko giri de ñun ànduñu si li ngay def am am na benn jour bi agogo mii nii moo taxaw ci biir groupe bi ne ne ko giri dañ laa soxla ñëwal parce que li ñu waxoon defoo si dara xam la wax agogo agogo man du ma wax yow ndax am na ñoo xamante ne nii dañuy toppaate te yow ci ñooñu nga bokk man maa dugg man konaa man ci biir groupe bi ne ko amul kenn bu mag bu ñemee wax giri boroo li nga wax tegoo ko ci yoon man maa dugg ci biir groupe bi taxawal kii ne ko kii bu bu la gënul gënoo ko te fi ngeen teg gëneel du foofu kii dafa bokk ci ñi la jiite kon bu la laajee nga ko war a tontu kon ñun on est là pour défendre l'injustice bu ñu demee ba mënuñu ànd ak yow ci dëgg dañ la fay bàyyi ne ñukk tey Gris Bordeaux tey xëcc na ma teg ma ci wetam tey dëgg moo tax man ak moom ñu tàggoo bu sañoon ba tey maa ngi ci wetam mais ànduma ak nit ci lu dul dëgg parce que man li ma moo ma koy maa ngi ni 2017 ba tey bëréewu ma yàlla may suturaal kenn ma gis di ma ñëpp loolu laa a xamal gis nga yàlla deful benn mbir rek ne sa wërsëg si lii la nekk wallahi su ngeen gëmee ni yàlla am na beneen yàpp bu dul keccax wallahi li ñuy xeex dañ ci am ndam mais feeg yéen a ngi gëm ni feeg yéen a ngi gëm ni yéen a gëm ni su ngeen sibooruwul su ngeen dunguruwul su ngeen su ngeen toppul ay nit ba jaay seen ngor du ngeen am lu ngeen bëgg wallahi yàlla dina leen bàyyeek kooku te du ngeen mës am lu ngeen bëgg te ñun mbër yi loolu moo ñu daal Youssou Ndour way na ko Youssou Ndour nee na boo toppee nit foog ni yow mooy sa mooy mooy sa wërsëg yàlla bàyyi la ak moom seetaan la te ñun mbëru làmb yi balaa ñuy wax lan moo tax nit ñi duñu teg lu ñuy teg nañu xool ñun ban taxawaay lañu am ci société bi nañu xool ñun bañ taxawaay lañu am ci biir monde làmb bi ñu nekk lu tax ñun nous sommes irrespectueux lu tax ñun nit ñi respecté wuñ ñu ñun ñoo war a xool lan moo tax nit ñi respecté wuñ ñu avant ñuy nekk di victimiser wu dañoo war a xool ñoo responsabilité est-ce que ñun jël nañ ko lan moo waral ñu wekk ki nga xam ne mooy Lamine mi mujjee ñëw yoolu microom ñu jox ko wekk jox ko responsabilité yow mbër mi nga xam ne yaa ko jiitu salam bu juróomi at soo ñëwee ñu ñu doye dal lu tax loolu uure ni mu la gisee la lay ëwalee kon donc doomu aadama xat faka kab la bi sa bi sañ Tuubaa wax ci ci maayam ne nañ nañ nañ tekki jëng yi il faut briser les chaînes nañu tekki jëng yi ñun ñëpp ay jullit lañ seule la lutte libère sël la lutte libère ki xeexul du ku xeexul du am ndam mukk képp ku am ndam ci àddina képp ku am ndam ci diine képp ku am teraanga si àdduna da ngaa xeex ba am ko kon seule laa lutte libère kon donc ñun bëgg nañ ñu libéré ñu waaye nañu wane li tax ñu ñuy libéré parce que maa la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yàgg may gaañ du tax ñu baal la kon encore une fois Gris Bordeaux wekk bu rëy ba lal laa ko wax ma ne ko Gris ñun de am nañu opportunité ber sunu sunu parallèle loolu laa ko wax sax ma ne ko ñun mun nañoo def suñu bureau parallèle taxaw contre carré la balaa loolu nañu toog ñu waxtaan xam na la ma am ngeen si droit dem leen ngeen def ko wallahi yàlla na ñëpp dugg àjjana ma dugg safara pour tontu question bi ñu ne lu tax ñun demuñu jéem a tante waxtaan avant lii di xew ñun dañoo doye dal suñu bopp Maodo mu ngi vocal yi man maa ngi vocal yooyu ba tey Maodo giri 2 damaa parce que Maodo moo doon dox médiation bi il est un gars intègre ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mais il est un Maodo Giri 2 il est li ma ko xamal laa koy seedeel nit ku baax la te nit ku dëgg la te ku seetaan ITV barki démb bi nga xam ne nit ku dëgg mu jël fa xam na ni je suis un élément clé boo xam ne mën na ko apporter dal mu ne ko Konami bu mu la rëcc te Konami li muy wax na nga ko déglu na ngeen bàyyi leen xel ñoom ndaw ñi mais deful loolu mu ne ñoom am nañ droit def lu leen neex nañ dem seen yoon kon loolu moo waral lii am. kon pour tontu seen question ñun féeteeluwuñu ñëwuñu ber mer ngemb dañoo gis injustice bëgg koo kaas ñu ne ñu dangeen a tuuti du ngeen dara maanaam mat maanaam maanaam yëngu-yëngu géej yàqul nelawu jën ñu bëgg leen wan ni nag ñun ñoo waral coow li ñun mbëri ndaw yi ñoo waral coow li kon encore une fois ñun féeteeluwuñu bañuñu ku ñu yilif ñi ñu yilif ñoo ñu wegul ñu ñu yilif ñoo ñu joxul cër ñi ñu wegul yilif ñoo ñu tegul fa ñu war a teg la vue ñun tey am nañ ay prérogative mais assise nationale am na fi pour ma wax leen yéen yéen ñi nekk si làmb am nañu xeex nañu ba def mémorandum pour ma wax leen ils sont corrompus les grands lutteurs là ñoo tardeel làmb mbëri mag yi ñoo tardeel làmb il faut dire le il faut il faut appeler ça ñun def nañ mémorandum nar a def conférence de presse Matar ba ne bàyyi leen li ngeen di def yëpp ngeen ñëw wuy suma mooy bi ñuy waaj a inauguré arène nationale bi mobile bu ma lépp luy jafe-jafe lépp lu ñu wax fii nii def nañ ko ci biir mémorandum bi benn magu Tafa Gueye boo ñu ko gin bindal muy Malick Gueye moo ñu ko bindal bindal ñu mémorandum bi nga xamante ni ministres yi sax moom la ñuy bindee bépp jafe-jafe ci làmb ba ci ménager bi dañ koo xeexal ñu conflit d'intérêt bii kii di wax dañ koo dugal ci point bi ñu ne il y a eu un conflit d'intérêt parce que tey mbër mi promoteur bi munul nekk manager manager munul nekk manager yor mbër ba pare dem nekk agent wu promoteur loolu conflit d'intérêt la tubaab di woowee. mu ngi mel ni tey nga ni da ngay défendre mbër mi en même temps nga bëgg a défendre intérêt promoteur bi te intérêt mbër mi mu ngi ci biir intérêt promoteur bi intérêt promoteur bi mu ngi ci biir intérêt mbër mi kon boo gisee manager yi di gën a suqaliku ci biir làmb parce que dañoo jël ñaari intérêt di ko téye. mooy mbër mi mooy victime bi mbër mi moo siy perte parce que tey Abdoulaye Ndiaye par exemple bu fekkee mooy doxal jéey ba pare yor ay mbër tey buy dëgg làmb tey day day di seet intérêt jéey bu nga seet intérêt mbër yi mënul nekk il faut mu seet ci benn intérêt te moom rek moo ciy gagné promoteur bi du ci gagné mbër mi du ci gagné kon encore une fois moo tax ñun ñu wéet parce que ñi nga xam ne ñoo ñu waroon défendre suñu intérêt dañoo am yeneen intérêt yu ñuy défendre te loolu conflit d'intérêt la ko tubaab bi tuddee soit que da ngay dem nekki agent promoteur nekk euh, euh, manager défendre ñaar yooyu moo a mais mënoo jouir les deux fonctions à la fois kon donc li tardé làmb loolu it ci la bokk te ñun dañu xam ne ñu ay dof on réfléchit gars yi nag monde làmb bëgguñu ko yeewu man bu ngeen gisee ñu écarté ma loolu la monde làmb bëgguñu ko yeewu te ñun ñoo bay bañ loolu maanaam nañu bañ ni ñun dañoo yeewu nañu bañ ni buñ bàyyi dof doflu toog naa ci année barki alxuraan maa mais sur le saint coran mbër doful man maa waat loolu mais ñun ñooy bëgg di nekk benn citoyen de arrière plan pour am lu ñu bëgg loolu dafa jeex layam-layam ak yërëmtalu mayeetul dara si àdduna bi bu ngeen yaakaaree ni seen doole ji ngeen yor naan da ngeen di layam-layam ci koo xamante ni matul 80 kilos pour am lu ngeen bëgg munoo leen koo nax yéen ay perte pour loolu moom pour ma wax loolu pour ma rebondir ci Matar Ba bi ñu defee 10 points ñun ñu doon taxaw ci biir groupe bi Boy ñaa dañ koo woo pour ma wax la rek gars yi ñun li tax ñu fétteelu ñun xam nañ ko Boy Niang bi mu demee ci inauguration ba ànd ak mbëru simple yi ci biir groupe dañ ko doon saaga ay ndey naan kii jaam la ñun dañoo boycotté moom daa waroon boycotté Matar ba nañu léegi ñëw leen ngeen toog ngeen wax ma lu ngeen naqari bu leen conférence de presse bu leen def dara ñëw leen ngeen indi seen même booy dox àdduna bi ni muy doxee da ngay ànd ak moom ñu def une mémorandum de 10 points nga xam ne bu ñu demee lépp lu ñu waroon wax dañ koo tënk ci këyit gi nañ jébbal ko moom dina ko jébbal ñu muy liggéeyal ñooñu dinañ saytu te sax noonu la war a demee ñu ñëw jébbal ko point ba pare nag war a koo wax li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe ma daal di comme ni ko mobile waxee yow sama xarit nga ñi ko doon wax di dal ci kawam ñooñu ñoo ñëw jënd glace ndax moonin jour boobu man maa jël kàddu man ko naa ne leen ne ko mati monsieur le ministre Matar Ba avec tout le respect que je vous mooy cër bu ma la mënti jox du tee dinaa la wax jafe-jafe mbëri ndax looloo tax nga woo ñu fi. avec tout le respect que je vous dois du tee dinaa la wax ni mbër yi sonn nañ surtout mbër yi ndaw yi ndax loolu moo tax nga woo ñu fi ndax danga ñoo woo pour dégg jafe-jafe mbër yi kon ñii li fi wax yëpp du ma ne du loolu waaye li tax ñu woo ñu bu doon man dama fay ñëw kit konan damay ñëw indaale xalam ak bongo ndax ay lawbee ma yar waxal la lu la neex nga jox ma ma yóbbu sama kër mais loolu indiwuñu fi ndax mbooloo ñoo ñu jox seen kàddu te ñooñu dañoo war a dégg seen sa kàddu mais malheureusement ñoom yàgguñoo dégg lu ñu leen di dëgg surtout xale mais il a failli mu ne nañ ma génnee si biiti parce que man ba pare li ma gën a metti ma déploré ko mooy ñun ba ñuy dugg si bureau Matar Ba monsieur le ministre Matar Ba dañ ne mbër yi bu kenn dugal portable am mooy wane ne manque de confiance moo tax nañu nañu amaat respect ci suñu bopp ndax nit ñi respecté ñu dañ ne benn mbër bu mu dugal portable am ñu jàpp ni xëy na loolu la ñun ñëpp ñu bàyyi suñu portable portable si secrétariat bi dugg ñu duggee ba ci biir ñu gis ay communicateur communicateur traditionnel yor portable di manipuler ñun mbër yi dañ ñoo téye ne suñu portable du dugg léegi ma jàngat situation boobu ma xam ne loolu xeebaate la ma xam ne loolu tuutalaale et manque de confiance la parce que ñun amuñu respect suñu duggee ci biir mbooloo sax mën nañ faa nekk di filmer kon ñun dañ ñoo ba tey joxuñu cër te nit ki bépp mënul bépp mënu laa di nawloo jiite jiite ba pare nawloowu la nit bu la nawloowul mënu laa jiite man ma déplorer loolu mais nag dalu ma ci kaw ministre bi de suñu bopp laa wax ma ne ñun bëri nañ xoolaat suñu bopp boo gisee ñii ñëpp ñu bàyyi leen ñu dugal seen portable ñun ñu téye ñu ci biti am na ba tey beneen situation bu ñu ñuy xoolee am na beneen ba tey benn manque de respect bu am kon tey nañu xoolaat loolu mais ministre bi mënatul dégg loolu bu ñu jugee ne day wax econ eh, moo jug fëgg taabal yi ne Kona li mu wax dëgg la te moo ñu fi indi ñëpp li ngeen wax li loolu te mbëri ñu yónni bu ñu yëgee ni li ngeen fi wax xaalis lañ leen jox loo xam ne 500000 la quoi une somme miette cinq cent mille lañ leen jox cinq cent mille jour boobu man maay wax ak yéen parce que tey bugguma ñu jékki-jékki rek foog na ñun dañoo jékki-jékki rek mer nii toog di wax dañoo dund ay injustice ak mbër yooyu ñuy woowee mbër yu mag yi ak mbër yooyu ñuy woowee ay VIP ñu ne ay autorité lañ ji ribardoo jiite leen kon ñooñu tey suñu demee ba gisatuñ suñu bopp parce que nit ki boo koy jiite da la lay nawloo tey jikko yooyu ñu làmboo ñun bugguñu ko jikko yooyu nawloo wuñ ko te jikko yooyu amul kenn ku mu amal ñoom ñooñu kon loolu moo waral ñu fétteelu kon tey suñu jógee di wax dañuy wax pour lu jëmale làmb kanam wax ji nag doy na man depuis 2017 maa ngi déploré bi ma naan pour qu'il y ait innovation il faut qu'il révolution boobu ñu kenn gënum gëmuma démb la Gris 2 wax ni révolution rek moo mën a régler problème lan mooy révolution révolution du vandalisme révolution du du lu bon révolution du rebelle révolution mooy casse say droit parce que balaa coppite di am il faut mu am déclic déclic bi nag mooy kenn ku ne xam ni sama droit yaa ngi koy violer arrête parce que dama leen wax léegi ku la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yaa ngi may gaañ lu tax mu baal la luy tax mu bàyyi la il faut frapper fort te foofu lañ toll bu dalee ñu wàcc ci tali bi dinañ wàcc ci tali bi xeexuñoo kenn suñuy intérêt la lañuy xeexal te kenn ku ne say intérêt moo la tax a jóg moo la tax a génn sa kër ginnaaw intérêt Sénégal kenn ku ne sa intérêt bopp war na laa doy kon ñu nit dañoo jug pour ñu bàyyi ñu xel lan moo tax ñu ñuy bàyyi xel mooy que bëgg yaa ngi ñëw bàyyi leen xel li ma leen di wax boo gisee ñu arrêté làmb ji du dara bëgg nañ ñoo xiifal mbir yi bu jub see ñu jëbbal ñu ay ngooñ jël ñu ay sécurité ñuy dóor nit ñi bàyyi leen xel loolu bind leen man maay wax ak yéen parce que nit ki boo mënta càmbar di utiliser sa xel rek nekkatoo nit. bëgg nañ ñoo appauvrir ñun mbëru làmb yi parce que ni ñu annulé làmb ji amul yéen ñii ñëpp fu ngeen ko mën a teg kenn mënu ko analyser surtout façon bi ñu ko defee. il veut nous appauvrir après ñu jox ñu ay ngooñ pour ñu ànd wàcc ak ñoom ci kaw bu ñu bëggee eh, teg injustice askan bi ñu wàcc ak ñoom ci kaw ci ànd ak ñoom di dóor askan bi te loolu du am. association des jeunes lutteurs du ñu ànd ak benn autorité ci injustice autorité bu yaakaar ni di ñu xañ suñuy droit après nga xëcc ñu sa wet jox ñu ngooñ parce que xiifal nga ñu pour ñu ànd ak yow ci injustice duñ ko nangu xam na moo tax ñu gëm loolu. parce que ministre de la justice mu invité ñoom Gris Bordeaux seen soi-disant baalu boobu. te Gris Bordeaux moo génn taxaw ne ministre bi dañ koy porter plainte kenn wax loo wu ko ko moom moo ne ministre bi dañ koy porter plainte. ñëpp ne audience la bëgg ñun sax dañoo ruus parce que ñun ay mbër lañ bu ñu sañoon duñu du ñu wax ni xam nga société bi lan lañ ñuy wax mbër yi ay nitu intérêt lañ mais nañ ko xeex ñun ñun du ñu ay nitu intérêt ñun lu ñu am askan bi moo ñu ko jox mais nag fukki dëgg su fekkee benn fen day toxal day naan fukki fen benn dëgg benn benn fen day yàq fukki fen fukki dëgg tey benn benn fen bu fekkee fukki dëgg day toxal fukki yëpp tey juróomi nit ils sont corrompus peut-être ñoo nekk ci kaw ñun ñëpp ñoo ñoo yor suñu destin tey mbër yu mag yëpp ñoo yor suñu destin seen comportement lañ ñuy jugé moo tax ñu naan mbër yi ay nitu intérêt lañ parce que askan wi musul taxaw ba mbër yi taxaw wax loo xamante ni askan wi dinañ ci gis seen bopp lu dul ànd ak ñi nga xam ne ñoo autorité yi ministre bi lan la wax nee na ñoom dañ maa demandé cinq points Gris Bordeaux ko moom ministre bi la war a porter plainte bu dee tëj day am ñoom ñoo tëjoog ci biir ministre Malick Sall ministère de la justice moo taxaw fet maanaam sox du wax moo fen mensonge international la defal. parce que olof dafa diis soo nee fen dañu naan da ko saaga mais mensonge international mooy dafa dem ba génn bitim réew teg ay tuuma ci suñu lor loolu diffamation lañ koy tuddee ay intoxication la joxe ñun du ñu ay dof kon ñun tey jii dañoo waroon dédommager ci wax ju ñaaw jooju. parce que tey teggi tuuma maanaam fa yow egg du man eggu fa bu doon ci réew mi la ñu waxalee bu boobaa dina neex a dindi waaye daf ñoo waxal bitim réew kii tey mën naa dem suba bëgg amba bëgg dem ambassade bëgg visa ndax ñun visa ni ñu yombee am na ñu bëri daf leen a naqari ci ci société bi am na ñu bëri daf leen naqari ci société bi ñun ni ñu yàlla def am na ñu bëri ñoo ne leen naqari ndax Balla Gaye avant 2005 kenn xamu ko tey il s'est il s'est parti de rien du tout pour accéder à certain tey ji Balla Gaye bu muy lu mu am teraanga bi muy am teraanga boobu mi Matar Ba nekkul ministre kon lan moo tax Matar Ba war koo mën a jënd lan moo tax nga am ngay fay ko 80 millions ñu jox la 2 millions jënd sa baat ba bu société bi sa doomu mbër yi société bi sax bu ñu soxlaa dara yow doo mën a taxaw ngay porteur de voix nga waxal sax waa géejawaay mais loolu du am lu dul nag autorité bi nga xam ne moo noot askan bi suy ñëw géejawaay yow lay jox 80 millions wala 50 millions ne la kaa ñu ànd après askan bi la ñuy xoolee dañ naan ñun suñuy intérêt rek bu ëllëgee gisoo tey lii xew ci làmb dem leen ci commentaire yee ñoo ñaw lañ ñuy wax pourquoi ñun ñu ko ba suñu société du wan ginnaaw lan moo ñu ko war a jaral nañu dem ci ginnaaw askan wi ndax askan wi moo ñu def lu ñu doon askan wi suñu amee combat ñoom ñooy daw ñooy sonn xale yooyu topp suñu ginnaaw ay sans emploi lañ xale yu topp ci ginnaaw mbëri ñu ci ëpp amuñu xëy état joxu leen liggéey il se il se bat de corps am pour dundal seen i wayjur kon tey xale yooyu tey mbëri yu ndaw yi mbëri yi egg ci kaw war nañ leen a mën a waxal au moins war nañu mën a wax pour xale yooyu topp seen ginnaaw kon cin tàngul ginnaaw nga moo lakk ministre bi su génnee ne juróomi poñ lañ ma laaj te ñoom nee nañ ministre moo leen woo di leen baalu man ministre bi fuuta la ko waxee benn autorité bu mag moo ma envoyé vidéo bi man ci làmb pour confirmer li ma doon wax fuuta la ko waxee mu ne juróomi poñ la ma la ma cinq major cinq major la leen tuddee mooy mbëri fa ñëwoon il moo demandé cinq points benn bi mooy ma nekk seen parrain beneen bi mooy ma yóbbu leen ci Macky sàll beneen bi mooy ma ma ma bu ñu amee campagne ma bàyyi leen ñoom ñu accompagner ñu am na beneen point muy juróomi point yoo xam ni tënk na ko ne ñoom moom lañ ko demandé mais ñun waxuñ ñu loolu ñu yëkkati fukki million jox leen ko kon ñun fenaluñu kenn vidéo bi tey ku mu bëgg mën nga dem si internet bi nga gis ministre bi wax loolu kon tey dañoo demoon ne dañuy jéggalu ministre bi ger leen ci fukki million te ñoom ñooñu ñëpp ku ci nekk am nga ay 80 millions yoo xam ne fayeeku nga ko ba fukki million tax ñu man waxuma seen xas mais dañ ñoo xasaale ñun ñëpp ndax bu benn mbër fotee dañ naan mbër yëpp ñoo fotee kon tey suñu ñëwee injustice yi ba tey di ñëw mooy lan dañ ñoo bëgg a appauvrir wax naa ko léegi dañ ñoo bëgg a pour après ñu daal di ñuy utiliser waaye nag man dey injustice lay xeex mbër yi toog fii nii képp ku ci pare pour nekk nervi wala nekk koo xam ne dañ lay utiliser ngay lor sab askan man ànduma ak yow te du ma mës a ànd ak yow te doo ci am ndam te doo ci mës a am ndam ndax sama ndey sama baay ci askan wi la bokk ñun waruñu benn intérêt personnel waruñoo tax ñu lor suñuy ndey ak suñuy baay ak suñuy njaboot kon encore une fois encore fois mbër yi duñu ay dof mbër yi duñu ay dof il faut que ngeen respecter société bi nañ ñu respecter ñu nit ñu respecter suñu bopp ma ñëw nag ci autorité yi ak décision bi ñu jël làmb ju ñu yàq ci moyen de vingt-quatre heures ci jour ji musul am dans l'histoire mais ñun bëri heure bu ñu musee fauté dañ ñuy sanctionné heure bu ñu musee fauté dañuy ñuy mu ngi mel ni ci bis boobu rek mbër mu ci tardé woon dañ lay sanctionné waaye mbër mi ngemb ba war a ñëw ñiy déplacé wu ñëw waa léegi ñu ku leen di pour pourtant ña leen doon kaasal ba ñu tëjoo gouverneur ba ñu génnee dañ leen dañoo ne muut ba tey kenn déggaatul wax ci am na ñu fi tëju barki démb te dañ doon fëgg taabal ji kon mobile lim naan gars yi dañuy teg dañoo war a teggi intérêt personnel jël intérêt làmb teg ci table ji wax ji ñëw na kon ñu li ñuy wax waxuñu ko ngir bëgg a wax lépp lu ñu wax aju maanaam jalu muus la heure boo waxee fekk ko fa injustice bi nag mooy lan dafa am benn mbër champion d'Afrique la ñu koy wax Sélé tam dëkk Mbour. kase damaa jum kase Diop le grand champion tey ci chaise roulante la toog. Euh, am na benn drapeau chef de l'État bu 2000 je ne sais pas 2018 la xaw ma 2020 19 ñu defe woon ko Mbour man damaa gis sele ñu teg ko ci 16 lant di ko wërale stade bi di ko ketal CNG mu ngi ci kaw yow yaa ngi fa woon mag autorité yëpp Matar Ba ma ngi fa woon man maa dem këf microcentral bi man ko naan ne xam ngeen ne lii ñaaw na un champion d'Afrique koo xam ne ñaari licence la am licence simple ak licence d'or mu fay assurance mu gaañu ci biir làmb ndax sekkeen moo ko gaañ sekkeen nduur moo ko gaañ mu def une accident toog un an ci chaise roulante ba tey drapeau chef de l'État ñu financé si ay millions ci dëkk ba mu dëkk ñu ko fay ketal loolu gàcce la waa léegi hmm? Valdo ngi nii rek champion d'Afrique la mais pour ma ma relancer wu moo tax tey bu ñu nee bépp mbër da ngay ñàkku ay ree daf maa jàpp dama ne ñoom suñu wér-gu-yaram kañ la leen soxal non suñu wér yaram kañ la soxla soxal état du Sénégal kañ la soxal CNG gars yi wax leen ma ñun suñu wér-gu-yaram kañ la soxal état du Sénégal kañ la soxal CNG ndax ñun dañuy dagg assurance dañuy dagg assurance te bu ñu gaañoo duñ ñu faj benn ngi noonu ci champion d'Afrique boobu ñaata mbër ñoo gaañu ci biir làmb feebar tëdd waxuma la sax mbër yi active mais ay ancien gloire ñaata ancien gloire ñoo fi dem tey ngir manque d' assistance te waroon na mam benn caisse boo xam ne caisse sociale lay doon day nekk biir CNG mbër yi nga xam ne sax ñoo ngi nekk en activité dañ leen di dagg di ko def ca caisse googu ngir kenn ku nekk ci problème maanaam gérer lamb nekkul lu jafe ndax fu ay fonds di dugg ay fonds di génn rek gérer ko mais ñi ko gérer bëgguñu làmb wegguñu mbër respecté wuñu avenir u mbër avenir làmb li ñu fay jógee mooy ay ancien retraité lañ fa jël indi leen fa pour ñuy am lu ñu yóbbu seen kër fekk nag làmb ji jëruñu ko ci teg ko ci loxo waa làmb ñu teel ko seen bopp ndax mbéjum kanam borom koy fajal boppam lii day continuer di persister kon ñoon duñu ay dof te jegewuñ ay dof kon tey ma ministre bi suñu tasee làmb ci ne manque de sécurité lañ wax nit ñi il faut qu'ils sa on sa dise la vérité ñoom dañ ne moo amul ban version lañ ñu wax dañ ne sécurité moo tax làmb ji tas waxuñu fenn Covid waxuñu fenn Covid ndax benn décret wàccul benn décret wàccul buy tere rassemblement benn décret wàccul buy tere manifestation kon bii tas làmb ji dañ ne sécurité moo amul waaye deux jours après match dañoo dem ñoom ñu def seen rassemblement seen bureau boobu ñu def CNG xam nga la ñu wax ne waaw léegi mbër yi dañu arrêté làmb ji parce que Covid bee tax ndax mbër bu ci ñàkkuwul doo bëri mais c'est une mensonge insécurité la ñu wax dañ ne GMI amul moo tax làmb Pape Sarr ji yàqu ndamuñu mobile bi. ñu dem deux jours après ñu réunion ñoom ñoo ne ay waxu vaccin waaw waxu vaccin lu ko fi indi lu indi waxu vaccin kon ñun ñu ay cobaye encore une fois suñu wér gu yaram mësta ñor CNG mësta ñor état du Sénégal mbër mu ci feebar yaay faj sa bopp waxuma la sax mbër sénégalais bu ci feebar yaay yóbbu sa bopp hôpital sa jabar buy wasin soo fayul dañ ko fay bàyyi ba mu faatu yàllaahu ñaata doomu Sénégal ñoo dee ngir manque d' assistance ñaata doomu Sénégal ñoo dee ci ay couloir hôpital ngir manque d' da ngay dem ci hôpitaux yi soo yorul xaalis ñu sànni la ci couloir yi ba nga faatu kon tey état boobu su taxawee ne dafa bëgg ñu wér boobu su taxawee jël ay vaccin wu milliard am ne da koy testé ci mbëri jël ay vaccin milliard am indi ko ci Sénégal ne daf ne daf ñu koy forcer ni vacciné te jamono boobu mbër yaa ngi siburu kenn faju leen mbër yaa ngi ndàmbataan kenn faju leen mbër yaa ngi am insuffisance rénale kenn faju leen ñaata mbër lañ fi exporté ay nit sénégalais simple di leen fayal pour ñu dem Europe ñun tey ñooñu ñoo taxaw ne dañ ñuy jëkk pour dañoo bëgg ñu wér il faut qu'on se respecte defuñu ko waali defuñu ko defuñu ko Sidi defu ñu ko benn ñàkk nitu fayda yu nekk ci Sénégal defuñu ko kenn ñu ne mbër yi la ñuy defuñu ko fubal bi ñu ne mbër ñun la ñuy def ay cobaye encore une fois am na politique bu ci nekk Macky Sall il a reçu dafa am vaccin yi man dama leen di wax li ma ci gëm ku neex na nga am loo ci gëm vaccin yi c'est un programme mondial nouvel ordre mondial ñoom ñoo ne on doit diminuer la population mondiale pour ma wax lu ma tax may wax li dama bëgg ñu xam ne ñun mbëri duñ ay dof ñun mbëri sori nañ ay dof ñii li may wax nii ñiy toog fii ñoo ma ko gën a xam yàllaa mën na too wax may wax on a un mondial boo xam ne dañ ne dañu war a réduire la population mondiale mooy dañoo war a wàññi nit ñi non dama leen di wax de waxuma nag covid bi amu fi waxuma ni covid bi bu ko maanam du dëgg mais dama ne la vaccin yi laa la wax dafa am benn doomu aadama bu tudd Bill Gates Bill bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo bokk ci nouvel ordre mondial boobu bokk na ci ñi nga xam ne moo taxaw ne nit ñi dañ leen a war a wàññi parce que pauvres yi dañoo xatal àdduna bi dañoo war a wàññi bi nit ñi ni ñuy juddoo ndax àdduna bi mën a neex àdduna bi dafa xat kooku noonu tey bokk na ci ñi financé vaccin yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo financé tax informaticien la bu doon sax docteur la wala muy infirmier mais informaticien la informaticien lu ci yoonam ci ay vaccin kàddu yooyu mu yëkkati woon nag moo tax man sama xel dalul ci vaccin que digaluma kenn laa waxuma ku kenn kum neex nga ñàkku mais man laa kona digaluma kenn mu ñàkku ndax xam la moo tax xam la moo tax dama koy layal parce que damay bañ intellectuel yi taxaw fii naan waaw eh, citoyen di wax waxu dof ñun ay intellectuel fi ñu ko jàppee mooy ki nga xam dafa gëm boppam gëm réewam vaccin yi doyuma xam la moo tax doyuma parce que ñoom ñi ko indi ba feebar bi ne toog dañ ne vaccin rek moo ci mën a génne nii AstraZeneca Pfizer Moderna ba ci Johnson and Johnson bi mujjee ñëw. ñu ak Sinopharm ñoom ñëpp amul kenn ku ci taxaw ne samay vaccin homologué naa ko wóolu naa ko ku ko jël fii ak 5 la mën a dal maa ko garanti déedéet dañ ne ñoom defar nañ ko waaye garanti wuñ ko. waaye vaccin yi nga xam ne kenn garanti wu ko ñi ko defar garanti wuñ ko réew mi nga xam ne boo feebaroon boo fay faju ji dañ lay laaj xaalis pour nga dem fa faju ñu jël ay vaccin may la ko xel na ko te lay jar kon encore une ba pare nag la koy forcer. te sénégalais yëpp bu ñu pare woon pour ñàkk Macky Sall amul mun a ñàkk 1 pour cent des kon lan lañ bëgg campagne parce que am na lu mu signé fële ca nouvel ordre mondial bëgg nañu wane mbëri ñu dajaloo comme ñun ay cobaye lañ ñu dajaloo arène nationale bëri fa ñu filmer ñu wane ko ci plan international ña mu waxaloon wan maa ngi ci seen ni ngeen waxante woon man maa ngi ci maa ngi je fais vacciner maximum de ma population loolu mooy programme bi te ñun pare wuñu pour céder ci loolu parce que bu fekkoon moo a jóg dinañ ne kenn ku ne mais dañoo bëgg a dajale arène nationale parce que dafa am image yu ñu soxla dañoo bëgg jeunesse parce que làmb monde de la lutte lépp ay jeunesse la dañoo bëgg jeunesse bi yëpp génn monde de la lutte génn ñu vacciné ñu wane ko international wane na ñoom kat ñu ngi si mission bi nga xam ne moom lañ nekk ñun on est pas on va pas kon damaa bëgg ngeen xam ne ñun dofuñu te pare pour dof te buñ dee ay dof sax kër nit lañ juddoo ndax dof boo gis kër nit la jógee kon encore une fois askan wi nag lañ doon wax pour ñu dégg ñu ndax boo xëyee xëyee def dañ naan xale yi yëgluwuñu dañoo yëglu tàggoowuñu kenn nag lii bu changé wul ñun ñoo ëpp ci Sénégal mbëru làmb yu ndaw yi damay wax sax ñu naan mbër mu ndaw mbër mu ndaw amul dafa am les lutteurs populaires ak les lutteurs impopulaires ñun ñoo bokk ci lutteurs yi nga xam ne ñoom moyen lutteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ndax Balla Gaye li mu daggee licence laa daggee licence daf maa gën a siiw ñu gën koo xam ndax mbër dina maasee ak Balla Gaye at Balla Gaye gën koo siiw kooku du mbër mu ndaw mbër mu mag la waaye dañ ko gën a maanaam c'est impopulaire kon ñun mbër yi nga xam ne ñoo moyen populaire ñoo gën a bëri ci Sénégal te ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw te bu fekkee réglé wuñu solution làmb ibbi ko ibbi ko làmb mbër yi bëri ñu ñàkk seen alal ci làmb ji ñu subventionné leen encore une fois ah eh ñaanuñu saraxuñu xale yi doon bëri keroog ñu ñëw ba ci làmb ji financé seen alal ñu yàq làmb ji ñooñu dañ leen di delloo seen alal ba pare tegal leen ci ndàmpaay loolu dañ koy exiger forcé wuñu ko ñaanuñu ko dañ koy forcé buñ ko deful suñ ko deful du ñu bëre ñun te duñu renouveler suñuy licence huit mille et quelques licenciés kenn ku ne ñu forcé la ne da ngay renouveler loolu ñaata milliards la kon ñun xam nañu état alal ji muy jëlee ci làmb li tax état téye làmb ci loxoom bugg koo jox kenn ñun xam nañ ko li tax muy jël ay nitam di ko teg pour ñuy sucer le le le sang des ñun xam nañ ko kon ñun suñu toogee su renouvelewul licence ñoom ñooñu kenn du ci joxe dépense ndax ay ancien retraité la kon ñun bëri nañ xam fu ñu war a téye su fekkee ni lii réglé wuñ ko saison bi buy bee ñu ne ñu kaay leen bëri ñu ne bëriwuñu il faut ñu nangoo ñàkk dara ngir am dara su fekkee da ngeen dëgmal xeex il ngeen nangoo ñàkk dara ngir am dara ndax Thomas Sankara bi muy xeex dafa ñàkk dara ngir am dara Nelson Mandela bi muy xeex apartheid loi la woon ñu bind ko noir sur blanc ne nit ku ñuul moo gën a doye di nit ku weex nit ku weex bu toogee ci kaw nit ku ñuul ci suuf la war a toog ñu bind ko maas ko mu nekk loi ay nit ñoo ko xeex mu deñ kon pour qu'il y ait innovation bi ma doon wax il faut qu'il y ait révolution seule la lutte libère soo déggee seule la lutte mooy xeex rek mooy may ndam ndax yonent bi bi mu bëggee taxawal lislaam daa taxaw mu xare ba dal asalaamaaleykum wa rahmatullah mayo dito